جليلاي مسكني تبابات مثل اسمها بجاي خير من نبات فلتخنني بك وعبلي القرار بما نرى جملة حلم وعراب سيدنا محمد باب الفلاح وسلتي إليك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه wa kulli tey jii nag euh, commission scientifique ànd ak waa comité pilotage daara yi ñu xëyoon nag doon saytu daara yi fi liggéey bi toll ginnaaw bi ñu liggéeyee ba liggéey bi noppi ànd ak waa vérification ak euh, waa réalisation ñu ñëw nag ci daara jaalibatul maraqib ci sëñ daara bi di tudd sëñ naa Joxaane ñu koy laaj euh, nan la gisee liggéey bi biñ ko tàmbalee ba ni mu eggee ak lan la ci yëg. waa Touba ci kanam ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñ borom yàgg fi tànd ak wér di ziar sëñ Abdoulaye Mbacke jëriñ Touba ci kanam sëñ Abdoulaye Abibou ak euh, sëñ Abdou Fatah ak mboolem ñu àndal liggéey bi yëpp. di leen sant bu baax a baax nag di gërëm ci liggéey bu am solo bi nga xamee ni taxawu ngeen ko ci daara yëpp rawatina suñu daara ji di Dialibatoul Marakhib ni ko sëriñ bi waxee biñ tàmbalee liggéey bi ca biñ fi ñëwee bindoon daara ji ak bañ fi ñëwee seet si ko yàlla dogal ñu def fi lancement liggéey bi tàmbale ko fii ñu amoon ci mbégte lool ci kilifa yi nga xamee ne teewoon nañ fi ñoom ñëpp ñëw toog ci daara gi ñaanal ñu fi teg xeer wi bañ def ko ni mu waree ñu koy suñ jot wax dëgg yàlla la nga xamee ne daal wax dëgg yàlla noonu lañ ko waxee woon ca tàmbali noonal la liggéey ba continuer ba ni mu eggee ñu def ko muy mbaar moo xam ni yaatuwaay bi mat na juróom-ñeenti mètre guddaay bi mën na juróom-ñetti mètre def ko sengi bak macha allah dañ fi daan nekk buy taw xale yi di génn ñuy wàcc waaye ren jii taw yi fi amagul yëpp dañuy ne ci biir muy taw te duñu am benn jafe-jafe. defar néeg boo xam ne itam macha allah moom itam na mu war a mel la mel kon daal sant lañ leen def gërëm leen di leen ñaanal suñu borom. moom mi nga xam ne moo am fay mu fayal ñu leen ci barke Sëñ Tuubaa waajal binaa ya binaa liqtidaa waltafi mi kayda kulli si tidaa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 mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ Adama mi nga xam ne mooy jiite daaray sëriñ Abdourahmane Lo ji ci ndaam eh, di leen dalal bu baax ci barab bi ngeen nekk muy barabu alquranul karim eh, di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bu màgg bi nga xam ne suñu borom dimbale nañu ba jaarale ko ci loxol Touba ci kanam te muy jubluwaay boo xam ne Euh, jubluwaay gënu koo màgg ndax euh, lépp lu waay di def ci Touba te njëkkee ko ci alxuraan walla nga boole ko ca loola dafay doon loo xam ne euh, jubluwaay du ko gën a màgg ci dëkk bii. ba tax na mbir la mu am solo ndax li ko tax am solo mooy jàpp naa ne lu mel nii mm, Touba rek nga koy gis walla boog feneen foo koy gis daal xam naa fu néew a néew lay doon jël ay millions di ko def ci. Eh, barab yoo xam ne man naa am ña moom barab yi sax keroog ngeen leen di njëkk a gis loolu moom bëriwut fu mu am ci àdduna bi doonte suñu sunu jéego guddut ci àdduna bi waaye xam naa ne daal liggéey bu am njëriñ la boo xam ne li tax Touba beru eh, lii bokk na ci kon nag yàlla leen suñ borom taxawu te doon leen dimbal te dëggal seeni mébét yi nga xam ne moo nekk ci kanam yëpp wal tusbitan fi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa yaa aqiim ونجنا من سر هذا سمني وسر خيري وكل فتني ñu sant bu baax ci taxawaay bi di yëkkati ay kàddu ci eh, ndigalul sëriñ Mamballa Gueye dafa amoon yéene teew waaye daa am ngànt mu jëm ci kàddu yi ci sant leen rek ak gërëm leen ci taxawaay bi ngeen taxaw ci dëkk bi waaye rawatina ci daaray alxuraan yi mu gis ni ngeen ko jàppale daara yëpp ba ci egsi ci daaraam ji mu xam le nag moom nekkoon na ci ba amoon ci yéene lool waaye bi ngeen ñëwee def ngeen ci loo xamante ne si kawe na njort mi ngi leen koy seeral ci digganteem ak sunu borom waaye digganteem ak alxuraan di xam leen ne daara ji moom mbooloo mu ngi fi woon waaye ginnaaw bi biñ euh, waree egg ci liggéey defaraat liggéey bi ci la jël mbooloo mi yóbbu leen feneen pour liggéey bi bu eggee mu mën a ñëwaat comme ni ngeen ko defee mbaar mi ngeen fi def ak duusi ak néeg bi loolu mooy li nga xam ne mooy jëmmal daara des na beneen liggéey boo xam ne xëy na am nañ yéen eggale ko lu mel ne néeg yi nga xam ne moom lañ fondement ba pare waaye daal li ci jiitu mooy ñu ngi sant ñu mu ngi leen di sant daal cant goo xam ne amutu yamuwaay mu ngi leen di gërëm it mu ngi leen di ñaanal ci barkeb sëriñ bi yàlla na kuréel gi egg fa ngeen ko fa ngeen ko bëggee ba kawe seen jot jaay salyomi wa jaaxi man wu ñi yaay waru ma mislo walam najid muhammadin afdali xalqi laayi bila taraddudin wala istibaa'in هل يصلي أبدا خير الصلاة بأهل رافق الخيار والصغار وأبلنا أقصى الذي آتانا وترك ما في لما نعانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan mbokki Touba ca kanam man Djibril Dara maa leen di siyaar bu baax a baax di la sant di gërëm bu baax ci liggéey bi ngeen defal di leen si ñaanal ngeen am si ngërëmal Sëñ Tuubaa bu wér a ndax moom bu saa bu yàlla tawaan dañu buñ xëyoon si yeneen xiin rek bu bëgg a sàq ma wax gone yi dem dañ ñibbi waaw wax diggaal lii moom sant naa ci bu baax gërëm naa ci bu baax a baax yal nañ si am ngërëm sëñ ci baax di ñaan alxuraan yi moom tuyaa bu ñu sàmm yal na ko saa borom boole barke borom daaru moti aw saw min sunu biyaasin moo wila yaa baru rahmatuka na indana min amalin nasibu faxfir lana di xam ne suñu xool sedd na ci bu baax baax ndax mën nañ ne nëgën daaw rek bi ñuy bi muy taw dañ daan def néeg bi la gone daan fanaan amoon fu ma jàngalee ndax mbaar mi daan seen waaye ren moom wax dëgg yàlla bi mu tawee léegi ñu ngi sant Sëñ Tuubaa baax di leen sant di wax ne liggéey bi Tuubaa ji kanam di liggéey mën nañ ne Sëñ Tuubaa nangu na ko ndax kuy liggéey Sëñ Tuubaa dàkk ko ci mën nañ fa gën nga dàkk ndax Sëñ Tuubaa moo ne woon ñooñu ñooy ñooñu alxuraan kon nag bu doon jigéen di dàkk ak mbaar lépp kon ñi nga xam ne seen liggéey bi yàlla a nangu te fu ngeen ci bëgg rek ngeen àgg fa foo kawe ñu ngi sant sëñ Abib bu baax a baax ak yéen ci gannaawam ñëpp nag di sant nag sëñ Ilmaan Njaay mi booleeg yéen ndax Ilmaan Njaay moo joxoon ci bolo gi ñu ci barkeelu yàlla dogal ba ma ko yóbbu mu wax ñu ngi sant sëñ Tuubaa baax a baax di sant ndaw yi Tuubaa ndax ñi fi ñëw ñëpp man li ma gis ñoom mooy ak taalibe ku fi ñëw ku nekk li may gis yow mooy ak taalibe yaa gis yow te loolu la ñuy xool ci nit ñun kon nag ñu ngi sant bu baax di ñaan daal liggéey bi yàlla na ko mu yëpp gis sa bokk ci ba ni ngeen bëgg Tuubaa mel ko rek mel na ko raw ci barke Sëñ Tuubaa yasifu fi daarayni anni amma wa tayran qalbi wa sidni ahya waayini fi taatin ya rabbi ya wajal yamin ah ñu ñëw fii ci gaar bu mag nag ci kër Sëñ Mor Penda fii ci daara ji nga xam ne ñun ñi ñëpp jaar nañ fi ci ak ndaw ci sunu waajur Sëriñ Abdou Sadio Mbacke ba fii mu nekk nii sunu mag yor ko Sëriñ Sahid Mbacke di fi jàngale mu nekk daara joo xam ne di fi jàng ëpp na juróom fukki xale yoo xam ne mën na ndimbalul njaboot la ndax xale yi fi jàng ñëpp ay góor ak jigéen ñu seen waajur seen loxo jurul seen ginnaaw daanaka mën na ne ak fay am solo amu si sëriñ saxit bàyyi itam yëpp ngir téye daara ji daara ji nag yàgg fi lool te nekkoon si ak tumuranke tumuranke lool ndax waxtu yu ñu fi ñëw si nawet su neer masaana ñëw boo fi jaaree sa yaram day daw ndax boo masaana jaar si mbedd ci biir mbaam mi day taa gone yi du am fu toog nga xam daanaka day mujj obli sax pour jéem si nawet bi kon su ñu fi defee mbaar mel nii ba buy taw ñu mën a toog jàng te euh, ndox du dugg loolu ak sant yàlla waaye li ëpp soo na mooy wanag yu jàkkaar ndax mbedd mii suñ bunt kër yi daan xëy xam na kum saw ngir lan xale yi fu ñu saw te nit ñi it léeg-léeg xajoo gone ñu ndaw kër goo dugg bëgg tur ndox ñun acci du xale yi duñ obli saw si mbedd kon su ñu fi defee wanag mel nii ak foos mel nii kon day mel ne loolu saafara ngeen jàngoro joo xam ne daal kenn xamul mu toll kon ñu ngi leen bàyyi suñu tubaab mi nga xam ne moom fay. hormati rusuli wal anbiyaa'i wal ulamaa'i ma'al awliyaa'i wa hurmatil malaa'ikatil hurri kiraam fii ci daarul xuddus kër Cheikh Moustapha ci nuuru daara yi ni ci daara ji nga xam ne sunu jëwriñ ji ci sama pegg te mu mel ne bis bii tay moom dañ koo jagleeloon wàllu daara ci liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam da ko tàmbali di ko def ba ci at yu bari ci daara ju ne ñu xam ne dëkk bi daara ko sonc moo ko sos ñuy def daara ju ne ñu xool ko dem genn ko ba xam am nay wanag mbaa mbaar muñ jànge mbaa néeg yoo xam ne dongo yi dañ fay jànge dañ fay tëdd di dallu di sant bu baax waa Touba ca kanam di jaarale sant gi ci jëwrin ji sëriñ Abibullah ak mbokkam sëriñ Abdoul Ahad Abib ak mboolem mbokk yi ñu ko yëpp ci liggéey bu ràññiku bii nga xam ne defal nañ ko daari alxuraanu karim yi nekk ci Touba. di liggéey boo xam ne liggéeyub sëriñ Touba la ndax damay wax ne liggéeyub sëriñ bi dara gënu ci rëy liggéeyal ko ci daara ndax nit ku nekk boo koy liggéeyal da ngay xool ak bëggam te sëriñ bi moo wax ne bu fekkoon ne am na lu ñu koy doon ne mooy liggéeyal ko ci téere bi dafa wax ne bi xidmatil kitaabi wal hadisi yusbitu laa bi dahabin mawruusi dafa wax ne bu fekkee am na lu ñu ndono lu ñuy donde ci moom mooy don donn ko ci liggéeyal ko ci alxuraan ak hadis te loolu mooy liggéeyal ko ci daara kon bu Touba ci kanam bu jëlee loolu taxaw ci liggéey juróom-ñaar fukki daara sunu daara ji bokk ci ñu def liggéey bu ràññi ko boo xam ne ñun ñu fi dëkk xam nañ lim ñu jëriñ ndax ba mu fi nekk gut bu daan taw dañ naan am jafe-jafe boo xam ne gone yi fi dëkk saa yu tawee ba sibét boo xëyee fekk ñuy weer ay matelas yu ñu doon tëdd ak yére ngir bërëb bi ndox mu daan dugg ci kër gi ak it mbaar mi fi nekkoon ndox mi yeboon ko lool waaye lii ñu ci lii ñu fi defal ràññi ko ne ci ab taar ko goo xam ne liñ ci bëgg am nañ ko ci ñun ndax bu tawee dinañ ci mën a seelu ba ndox mi duñu jege fenn du yàq dara ci njàng mi kon loolu am nañ cant gu rëy goo xam ne ñu ngi leen koy sant Touba nga xam ne ñoo ci dugaloon seenu ñàq ñu dalal seen xel te xam ne foo waay mën a nekk yëkkati sa dërëm def ko ci man def ko foo xam ne ñi ngi koy jox ñi ngi koy def fu ñu xam ndax fi ñu koy def mooy tool bi si bëggoon ko ko ko defal te mooy liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan ak liggéeyal ko ci jaamu yàlla yi ci yitte yu mënta loolu dong ci la Touba ci kanam nekk kon ñu ñaan yàlla suñu borom nangu liggéey bi te gërëm ko liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci jëm jëmul fer bis ba ci mën jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf defal jazz jazz 621 jazz liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba